Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen démb xam ngeen ne ndakaaru njaay tàngoor na jeer ba jamono yi wax ak yéen sax tàngoor woowu ma ngay wéy di am ci diwaanu ndakaaru fépp lan moo ko waral nag mooy kii di Ousmane Sonko nga xam ne takkateer yi dañu bari barricade buntu këram mënul dem mënul dikk lu ko waral nag mooy dañu ko jàppoo ci fële Koungheul ngir ab caravane bu mu doon def daal jaaxaloon leen lool ndax bu ñu xoolee nag dem ci manifestation yi metti woon na lool ba nga xamee ne sax ñu bari ci waa nguur yi ñu nga doon daw jëmale foofee ca diwaanu Touba kii di maître El Hadji Diouf nag moom maître El Hadji moom xam ngeen ne démb daal toogul woon benn yoon ndax démb ku ne xam na ne manifestation yi dafa tàngoon jër jër jër ci euh, Sénégal ak Ndakaaru momentum momentum na kajero na telefon am adi wo te kidi a tak teri di wo kidi a bris te helen teri yer gir ka momon ko nyo ta hau jabun du kerem go hudal di ko yim jo hali ngakam ne moi karange na kisa na dal ai jaga nyara nyo bari ki wa gara ko a ape nyo mon nyo ngadon kien di dau di kien na daga hau momentum momentum na kama ngadon wo te di wo te kiri ma kisa le na ko li jantil karange na fim dol ni dala fitam a dala tul ta kheram dala kisna manifestasi wo kita ai kari jamuri bari bari momentum momentum na loolee la doon tiit ba waral loolu mu doon dànkaafu di wax ne Macky Sall na ko lijjantil kaaraangeem ndax foofee mu nekk daal xelam dalul benn yoon ndax gis na li xew li ñu def ay moromam mënoon na ko koo def loolee moo war moo waraloon moom métti El Hadji Diouf moom xelal dalul benn yoon mu doon sàkku ngir ñu defal ko kaaraangeem foofee ca këram ñu bari sax ñu ngi wax ne bu leen taal kër goo xam ne maître El Hadj daal euh, moom moom la ñu wax ne moo moom ndax maître El Hadj Diouf moom ña ngay xamle na moom amul kër dafa loué waaye kër xam ne rek taal ngeen ko du këram kon na ngeen ci bàyyi xel yéen ñi nga xam ne yéenay taal ay këru jàmbur kon maître El Hadj Diouf daal moom këram xamal ne këru jàmbur nga taal waaye maître El Hadj day loué amul li nga xam ne mooy kër yaa ngeen def mbokk yi